de lancer aussi un, un appel aussi si entreprise yi nga xamni ñi ngi fi te lañu yor amana commune bi daf ci am cër ñu bari ñi ngi doon wax c'était des questions politiques moi je dis non dëkk bi dafa am yoon donc tout n'est pas politique bien vrai que ni je suis de la mouvance présidentielle ñi ngi waxtaan mais lu commune bi moom dañ ko jëli te dëkk bi dafa am yoon man xam naa ne conseil municipal est bii di ñëw bu négociation yi aboutirul dinaa leen ñaan autorisation pour engager un avocat pour amener ni au poisson lañ fa am dañ koy la gare beau maraîcher aussi lañ femme, dañ koy jëli parce que avons nangu minimum gare beau maraîcher par jour plus de 1000 véhicules dina fa La pollution bi dégagée, bi muy dégager population Dalifort ñoo koy ñoo koy dund te ba muy nekk pompier véhicule bu maire Hann a donné 200 francs nous avons un franc duñ ko recouvrir donc lool nak ñi ngi mais su waxtaan abutul dañ ko yóbbu pour dire que tout n'est pas politique